cuuña du fa juddoo naa la ni la bëggee gaynde jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup technicien nee nañ ki yor poursuite bi mu bàyyi di ko teg ci public bi léegi nag ki ñuy moom mooy wax au nom des alliés ñëpp doon ko woowee yaayu Ousmane Sonko muy suñu tata Aïda Mbodj kon tata yow la jox kàddu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 nanguwul ku mas a wax coalition le peuple du Sénégal lay waxal lu mu wax ne lu ñu def te boolewuñ ci peuple bi du am Ousmane peuple bi moo lay njukkal peuple bi nga gëm peuple bee tax nga sacrifié wu bee tax nga daj li ngay daj peuple bi moo lay fay moo la gëm Sénégal kenn dootu leen nax peuple Sénégal kenn dootu ko nax peuple bee dem ba xam ne yow yaa leen ko jaral ñu jox la président tey majorité nga soxla dinañ la jox majorité fii allié amu fi ñépp Pastef lañu allié yi nga xam ne ñoo tënku ci Diomaye président dafay yokku li nekk ci liste d'attente bi xaw ma nañu toll ñëpp a ñëw bëgg a ànd ak yow ñëpp ñëw bëgg laa soutenir ñëpp la gëm ndax Sénégal la gëm Sénégal la gëm te yaa gëm Sénégal waa Sénégal dinañu ànd ak yow nga jox nu nag liste boo xam ni am nañ ci fierté kan moo nekk ci sa liste Mbène Faye jigéen ñaa ngi gis seen bopp ci moom

samay prétention ndax dama wër réew mi te bi ma waree réew mi fu ma dem dama naan leen duma politique ndax président Diomaye ak premier ministre dañ ma ni deer amul politique waaye bu ma ñëwee ñu laaj ma Ousmane Sonko bu ma demee nord ñu ne ma ana Ousmane bu ma demee sud ñu ne ma ana Ousmane bu ma ñëwee Ousmane ñu ne ma ana Ousmane Ousmane Merci beaucoup. merci léegi nag dañuy woo ki nga xam ne moom mooy les représentants de la JPS fi ñu toll nii tey ci salle bi muy ki nga xam ne moom mooy secrétaire général adjoint bu JPS muy Saliou Dione Saliou moom la ñuy jël jox kàddu gi asalaamaaleykum la jeunesse asalaamaaleykum la jeunesse dama leen bëgg dégg tey dafa am benn pacte bu ma bëgg ñu féetale ko tey dama am benn pacte bu ma bëgg ñu féetale ko le président Ousmane Sonko lii laa bëgg dégg Sonko avec Sonko jusqu'à la mort Sonko, avec Sonko jusqu'à la mort. Jusqu'à la... jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ndaw ñi tey kontaan nañu si yéen wane di ngeen seen manin bi may dugg fi nag xaw nañoo mere tuuti le président Ousmane Sonko waaye bi mu ñëwee mer gi daa dañ ndax moom suñu diggante moom dafa sori mënuñu koo mere président xam nga lan moo tax ñu loolu wax waaj mere lan moo tax yóbbuwoo ñu stade du Sénégal nga ñuy andi fii fii dafa tuuti stade du Sénégal dañ bëgg dem beneen yoon fii ndaw ñi mën nañ koo feesal weesu nañu fii ma ne la jeunesse vous avez fait tous les sacrifices nécessaires pour ñu mën a yegg fii vous pouvez être fier de vous ëllëg seeni sët dinañ toog naan suñuy maam bokkoon nañ si ndaw ñuy àndoon ndax le président Ousmane Sonko ngir xeexal dëgg la jeunesse xam nga lan moo des ñu ngi jëm le 17 novembre carte électeur yi nañu dem ñaax nit ñi comme niñ ko daan defee ñu dem retiré ko ñu waajal das carte yi fanaanal la jeunesse on doit enterrer le système le 17 novembre système bi dee na xam nga lan moo des il faut enterrer les restes du système le 17 novembre la jeunesse on doit donner une majorité en place pour que ñu mën a mettre en branle la vision 2050 la jeunesse on doit réformer les institutions te pour loolu il faut ñu am l'Assemblée nationale une majorité absolue la jeunesse les hommes du Sénégal soyez prêts le projet a encore besoin de nous la jeunesse président Ousmane Sonko ku leen fonk la ku leen respecte la pour la première fois au Sénégal tu jël une dizaine de jeunes investir leen sur les kaw xaaral xaaral tuuti bi. loolu boo ko yegg am na de. non test. Saliou. 30 secondes moo la des. li ma yeggali mooy. une dizaine de jeunes. ñu dugal leen ci liste yi ñu war a dem jogante pour nekk ci député c'est une première tey man mii di wax ak yéen maay troisième sur la liste nationale sàllu njoon bi ngeen di gis jërëjëf président Ousmane Sonko jeune bi ñoo la amee njukkal te incha allah le 17 dinañ la ko dem voter massivement am la majorité absolue ñu liggéey le Sénégal